ci làmb xam nañ ni que xeexkat la euh, moom c'est un grand bagarreur euh, te li nga xamante ni moo di seen open press bi ñoom ñaar ñëpp ils nous ont promis un combat rapproché yow tey combat bi euh, ban gis-gis nga ci am. waaw yaakaar naa ne maa ngi nuyuwaat réew mi ñaan leen jàmm ñu ngi jëm ci combat boo xam ne nii nag li ci ëpp ci amateuru làmb yi ñu ngi xam ne ñu ngi jëm ci làmb joo xam ne dimanche bii ñu jëm la muy combat boo xam ne ni tey jii muy diggante Eumeu Sène Tapha ñoom ñaar Bombardier da leen a boole. ndax ku ci nekk da ngaa daan Bombardier ñaari yoon muy Eumeu Sène di Tapha Tine da ci félicité nag Baye Alé bi nga xam ne nii tey jii moo jiite Alburax production dëgg diggante Eumeu Sène Tapha Tine boole ci lu mat cinq grands combats. Mm. jour combat bi dañ cee boole cinq grands combats. Alburi ci lay bëre kéwél Marle ci lay bëre mbay guy gi Thiatou Daouda Fall Coly Faye numéro 2 Wëz jàmbaar ak ndigal. ñooñu ñëpp ci lañuy ñuy bëre mu nekk ay combat yoo xam ne àdduna bi moom la ñuy xaar kon journée bii journée espoir la journée boo xam ne nii journée amateur la combat bii ñu jëm nii dimanche bokk na ci combat yi gën a métti ci carrière làmb lu tax lu tax loolu mooy dañuy di nga boole ñaari mbër yi gën a naqaree bëril ci làmb Eumeu Sène bokk na ci ñi dàq bëri senegal waaye Tapha ñi gën a naqaree daan Tapha daleen daan Eumeu Sène day xeex ci làmb Tapha day xeex ci làmb te ñoom ñaar mosu ñoo indi ci làmb bëre ba jàpp seen dikk duñu sonn ñaari mbëri du sonn la <laughs> te bëri na ci combat yi gën a jiire gën a neex ñoom ñaar ñoo ko bëree kon day làmb joo xam ne ni képp ku nekk ci làmb yaa ngi koy bàyyi xel mhm. mu nekk journée boo xam ne nii nag tey jii yaakaar naa ne balaa ñu ci sori rek daa am koo xam ne ni tey jii doomu banlieue la te bàyyi da ko ci sargal muy président Lat Diop mooy ministre des sports mhm. yaakaar naa ne avant daray làmb ci banlieue lañu bokk dëkk mook baay mu nekk géejawaay di def social chaque jour ci jeunesse bu bi kon tey jii baay bu teggee combat bu toll nii dañeen teg Lat nekk ministre des sports bu ko ci sargalee mhm. nekk na lu war